dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Mali si coow li nga xam ne jamono ji moo fa am loole nag daan nay tax waa CEDEAO tànn lu toll si juróom ci ay njiitu réew ci dendu Afrique yabal leen fa ngir ñu lijjanti li nga xam ne moo fa xew dox diggante ña ngànk réew ma ak askan wa journal bi nee na njiitu réewum senegal di Macky Sall ak njiitu réewum Côte d'Ivoire njiitu réewum Ghana ak njiitu ñoo nga Mali ni ki démb ci alxames ji ngir nag waxtaan ak kuréel yi nga xam ne maanaam ay manifestation yu tëj dakk ba pare di sàkku Ibrahima Boubacar Keïta mu daal di bàyyi réew ma yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na crise malienne boobee maanaam la nga xam ne moo koy lijjanti du yomb naam nag ay njiitu réew dem nañ fa waaye nag kuréel yi nga xam ne ñoo fa nekk bëgg Ibrahima Boubacar Keïta jógee fa ba léegi nii maanaam fa ñu ŋànk bàyyiwuñu ko ndax mouvement 5 juin ñoom nag xamal nañ lu leer juróomi njiitu réew yi nga xam ne ñoo jóge ci dëndu Afrique te ñëw foofu ci diwaanu Mali la ñu leen xamal daal mooy wax ji gudd gàtt Ibrahima Boubacar Keïta jóge ci réew mi mooy saafara mbir mbir mi amul lenn loo xamante ni moo koy saafara journal bi di réew mi quotidien na négociation yi nga xam ne waa CEDEAO jamono ji ñoo ngi koy def ak askanu Mali soo muy tuulee dafay tàbbi géej Ibrahima Boubacar Keïta li nga xam ne moo tax askan wi mere ko bokk na ci élection présidentielle 2018 ak fraude ya nga xamante ni def na ko vaaka na nga xam ne moom la ko caxte caxte ak wàllum guerre gi nga xam ne mooy jàbba jonge Mali Mali bokk na ci réew yi nga xam ne guerre gi na mu fay jàbba jonge maanaam bëri na lool te bëri na mu yàq ci réew ma impunité wàllum ñàkko kaaraange goo xam ne am lépp bokk na ci li tax askan wi meral lool lool lool Ibrahima Boubacar Keita waaye nag wax nañ lu leer daal en tout cas ñi nga xam ne ñoom la fa waa CEDEAO yónni na leen leen rek leen rek mooy saafara Ibrahima Boubacar Keita jóge ci réew mi point barre yéen a kaay gi de laas xëy di ñu xamal nañu nag ba léegi nii ñi nga xam ne ñooy liggéey ci ëttu attakaay ci réewum Sénégal maanaam ñoo ngi gittangaas ak ministre de la justice ñoom nag daan nañuy daggaat lu toll si ñaari fan yoo xam ne duñu liggéey dañuy banque seeni yoxo li ko waral mooy ay accord yoo xam ne état bu Sénégal signé woon na ko ba léegi nii wàccoowul ak moom yéen kaay gi de la turbine mu xëy di ñu xamal naan ñu mbaadu njiitu réew mi di président Macky Sall dafa jaaxle wala dafa nekk si ay jafe-jafe jokkoo na ak Moustapha Niass ngir nag mu daal di koy gunge mu wër kilifa diine yi waxtaan ak ñoom jokkoo na tamit ak Aminata Mbengue Ndiaye Mamadou Lamine Diallo bu tekkee la mu xamle nee na Macky Sall bu ñu waxantee dëgg jamono ji dafa bloqué wu maanaam demul cee nga dikkul mbay laara si ay problème la nekk yéen kaay gi di réew mi xëy nag ci jigéen ji nga xamante ni dañu ko filmé woon yeew ko génn ay cëram ba pare nag Fatou ci diwaanu Sacré-Cœur ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef ga di Ibrahima Diaw ak Babacar Ndiaye ak Moussa Diallo ñii ñëpp teg nañu leen loxo jaanoo nañ ak suisse bi jël na leen yóbbu leen sa kaso ba journal bi nee na ab mandat dépôt la ñu leen dóor seen guddi gu njëkk fanaan nañ ko ci kaso bu rëbës yéene gii gi de las mu xëy di ñu xamal lan ñu tëbaski ren gi soo muy tuulee dana metti lool lool ci ñenn ñi ndax nag bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara day taal yéene kaay gi di Dakar xëy nag ci alalu Biba Bourgi bi nga xam ne état bu Sénégal nee na ma ngi koy jaay waaye nag gi dafa xëy xëy samp ay laaj ndax nee na procureur ba Bassirou Gueye moo fi defoon ab conférence de presse wax ay bijoux ay takkaay yu ay da njong ba mu ko xaymaa toll na si ñett si ay milliards ak yeneen yoo xam ne toll na ci fukk ak ñaar ci ay milliards journal bi di xëy di laaj milliards yooyu maanaam fan la dugg ak procureur bi lan la ciy wax askanu Sénégal yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy nag ci camion bi nga xam ne moo rayoon ñett nit ca diwaanu Yofa journal bi nee na camion boobu 2018 la gëj a am visite technique ba mu mujjee dem ngir wut visite technique borom camion bi dafa dem ñu dàq ko ngir ay frein yu baaxul na ko del siwaatal demal defari frein yi waaye nag borom camion bi maanaam ñëwaatut continuer di daw tranquillement waaye nag journal bi xëy di laaj nee na borom camion boobu 2018 la gëj a am visite technique ana policiers yi ak gendarme yi nga xam ne doon leen romb yéen a kaay gi di stade xëy nag ci Famara Diédhiou mi nga xam ne toj na club bii di Bristol City moo fa nekk meilleur buteur nekk fa meilleur joueur yéen a kaay gi xëy na ci négociation yi nga xam ne moo dox diggante Naples ak Manchester ci lu jëm ci Kalidou Koulibaly journal bi di sunu làmb ñu xëy fekk Thiandoum nee na combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux combat bu neex lay doon waaye nag ñu raak ba dugg bu avocat